dal leen ak jàmm mbokk internet yi coow la doxoon ci diggante 2 ak TFM te la ko waraloon du lenn lu dul kii lee di yaa awa ab émission wala ab concept émission bu mu jëlee woon foofu lee ca 2STV indi ko ca TFM di ko fa doxal coowal xëccoo ga xiiroo ga ak ŋaayoo ga ñëpp jàppoon nañ na jeex na ginnaaw si nga xamante ne kii lee di Birane Ndour nekk directeur général bu GFM jël na dogalu boobu boobule émission ca télé ba waaye mel na ni ba fi mu toll nii émission bii di célébrité et religion ak coowam jeexagut de ndax yaa awa leeral yu war a tax ñu mën a jàpp ne bi lay coow jeexagul benn yoon ci ab bataaxal bu mu bind jagleel ko ay fansam ca la indi ay leeral jëm ci mbir mi ca boobule bataaxal yaa awa mu ngi cay wax ne yéen ñi may moo xam góor la wala jigéen la maa ngi leen di jagleel bi lay bataaxal la ngir rek talal seen xel te indi leen ay leeral yu war a mën a tax ngeen xam dëgg gi bàyyi waxi mbedd yi yëkkati ko fu nekk di ko teg ci sama der yaa a teg ci ne bi ma leen indilee émission bi di célébrité et religion mi nga xamante ne jàpp naa ne awma ci benn doxalin boo xamante ne dafa jàdd yoon ndax ki mu ko jébbal mooy dëgg-dëgg ki nga xamante ne moom moo ko moom bon nag jàpp naa ne defuma ci lenn loo xamante ne nii lu jàdd yoon la waaye bi ma leen indilee bi lay émission mbetteel laa am ci ñenn ñi nga xamante ne ba mbir mi tàmbalee ba léegi dañu ñu benn yoon di di jël ay wax yu ñaaw di ko teg ci sama der bi yaa awa ne ànd ak loolu yëpp je prends bon note waaw wow dinaa ci bàyyi xel bu baax waaye nag man yaa awa du nangu benn yoon sama fulla sama fayda ngor du ma nangu benn shaqa ci mbir mu nu mel mbaa ci anam bu ñu mel ci bu ñu mel ci waxtu woo xamante ne daanaka coow li fi am yépp war nañ ko mën a waxtaani ñàkk déggoo bi buñ ci diisoo woon mën nañu faj lépp ci suuf mu jeex te kenn du ko yëkki coow du am waxuma laak di may yoon keneen ku mu mënti doon mu yëkkati wax ju ñaaw di ko teg ci sama der fi ñu toll nii nag jàpp naa ne li gën mooy ma dakkal la émission fi mu toll nii nag jàpp naa ne li gën mooy ma dakkal gum boobule émission ngir may mu leeral mbir mi njeexitalu kàddoom ci boobule bataaxal yaa awa di wax ne maa ngi wat ne ci lu yàggul dara di ngeen ma gisaat teg ca di xamal ay fansam ne mu ngi yeesalaat sopp gi mu leen sopp te di leen jaajëfal ci kàddu gu rafet gi ñu ko seedeel waaye ba tey di leen jaajëfal itam ngir jàppale gi ñu koy jàppale lii la yaa awa xamle ci bataaxal gi mu jagleloon képp koo xamante ne fansam nga ndax yaa awa dafay animer beneen émission wala sax day indiwaat émission bi ci lu yàggul dara ci ni mu ko waxee daal lépp dana leer ci ay raw li bët Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal